mbokk jullit yi gannaaw ba ñu tuddee màggu yàlla tabaraka wa taala ñoo ngi toroxlu ci kanamam di ko sàbbaal te di ko sant ñoo ngi sant yàlla tabaraka wa taala ci def ji mu def julli mu di kennu diine te digal way jullikat yi ittiyaaba yu màgg ci àllaaxira yàlla bu mu ñu ump ñoo ngi feddali sunu pas-pas ci moom di seede di gëm di dëggal ni amul benn buur bu yeyoo jaamu jaamu ga di ñàkk jaamu ga di lore ku dul yàlla tabaraka wa taala bi nga xam ni moom kott moo yeyoo ñu rukkuwaal ka ak sujjootal ko ñoo ngi feddali sunu pas-pas ci sang bi nga xamante ni jaamu yàlla la di ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ni moo ëpp ñépp lu mu julli julli gu rafet yàlla nangul ko ko yàlla bu yàlla ñu di julli ci moom julli gu ëmbaale njabootam gu sell ci ak saxaabaam yu tedd yi nga xam ni sàmmoonte nañu ak julli ba mu jële sa teraanga adduna ak teraanga alaxira ak yëkkatiku daraja yan nañu yàlla taas ci seen barke mbokku jullit yi ñoo ngi dellu siwaat di leen yeesal dénkaana yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xadiis bu wér limaamu buxaari ak muslim rahimahumullahu solook wax ni sang bi nee na alayhi salaatu wasalaam képp koo xam ni waxtu yëlibaan di xutba wax nga sa mbokk noppil feeñal nga ñàkk teggin ci xadara yàlla na la bir su boobaa ni amul juma waxtu woo ñibbee sa kër da ngaa fay tisbaar mu teg ca it ni képp koo xam ni waxtu yëlimaan di xutba wax nga sa mbokk sit yàgg ci wax noppil yéen a bokk atte su boobaa it na la biir ni amuloo juma soo ñibbee da ngaa fay tisbaar mu di dénkaane yu màgg yoo xam ni ku ci ne war na sàmmonte ak moom ngir sañ yaakaar yërmande ak ngëneel yi nga xam ni aju na ci bés bu tedd bii ci waxtu wii te yàlla bu mu ëmp benn jullit fa tabaarakallahu su loolu wéyee mbokku jullit yi ñoo ngi dellu siwaat ci bés bu tedd bii di leen ziyaara di ñaan yàlla mu nangul leen nangul ñu nangul bépp jullit di santaat yàlla ci dajawaat bi di gërëm mboole seen ñi nga xam ni wuutu nañu service sunu gannaaw te yin bu rafet yann yàlla gërëm seen taxawaay te yann ko yàlla saxal bi xurmati alquraan alazim sunu xutba tey mi ngi jëm ci al muhaafada ala salaat bi maanaa sàmmonte gi ñu war sàmmonte ak julli ci fonk ko yàlla ne ci alquran na ngeen sàmmonte waxtu julli yi rawaatani julli gi si digg bi te ngeen koy taxawal ca seeni waxtu képp ku dégg aaya bi xam ni ndigal jóge na ca yàlla subhanahu wa taala ci santaane julli mu di farata ci ñun ñu war ko jooxe nag ca seeni waxtu ànd ak laab ànd ak teewlu ànd ak toroxlu jaamu yàlla yi na ngeen xam ni julli mooy li gën a màgg li ñoo jaamoo yàlla ci lislaam képp ku sàmmoonteeg julli daa am teraanga ci àdduna am ko ci àllaaxira képp koo xam ni nag fonkuloo julli di sàggane julli daa perte ci àdduna perte ci àllaaxira yal nañu ump mu di yàlla yàlla moo ko farataal ci jaamam yi ko gëm mu doon waxtu jokkoo waxtu audience diggante jaam bi ak xadara yàlla ñu di ko fàttaliku ci màggam gi sant ko ci ay xéewalam loolu moo tax ñu ni julli mooy dattu texe dattu teraanga ci àdduna ak ci àllaaxira yan nañu yàlla xiir ci fonk ko ak sàmmoonteeg julli yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam su bisu pencima li yàlla yi jëkk réglé si jaam moo di julli soo indee julli mu baax lépp baax aj màkk baax saraxe baax koor baax lépp daal di baax soo ñëwee fekk julli baaxul sa aj dootul baax sa koor dootul baax sa alquran dootul baax sa sarxe dootul baax ak sa mboole seen jëf kon julli daal képp koo xam ne yaa ngi ko sàmmonteel sañ nga rafet njort ci ëllëg ku sàggane julli nag loo gis yaa teg sa bopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne sax si julli gu ànd ak teewlu bu ànd ak toroxlu ci yàlla dafa jeexital ci koy def ragal yàlla wa man raqahu jalla hudahu xashiyahu wattaqaahu te yàlla ku sàmmonteel di ko yëg daa ko ragal daa ko tiit daa ko jublu daa sàkku ngërëmam su ko defee nag mu am ci yow ay jeexital fa sadaqa ida xadas wa wafa ida waad wa adda al amaana wa sabara inda niqma wa shakara inda niama képp koo xam ne bi ngay julli ànd nga ak teewlu ba julli gi jeex te fabbeeku wuloo su la ko yàlla nangulee dafa jur ci yow nga ragal ko te yàlla ku ko ragal daa ko tiit ku ko tiit daa ko jublu su ko defee loo di wax day sédd yàlla dëgg rek ngay wax daa sàmmoonte kóllëre xam ne yàlla ay ndox si diggante bi lu ñu la dénk daa ci bàyyi xel su dee ay kàddu su dee alal su dee njaboot daa ci sédd yàlla su nattu ñëwee daa ko muñ te doo saalit su xéewal ñëwee daa ko teg fa nga ko war teg sante ko yàlla mu ni ci alquran inna al insana xuliqa haluan ida massahu charru jazuan wa ida massahu lxayru manuan illa almusallin alladina hum ala salatihim daimun sadaqa allahu alazim yàlla nee na ci alquran nee na moo bind nit def ko mu di ku ragal nit dafa ragal lu ko xuri mu saalit mbaa mu yuuxu su nattu ñëwee mu yuuxu jooy tiit su xéewal ñëwee mu fàtte sant looluy nit ba mu des jullikat képp koo xam ni sàmmante nga ak julli yàlla neen loolu du la dal su nattu ñëwee ak lu mu tar-tar yaa ngee dal yaa ngi sant yaa ngi muñ ca doo saalit su xéewal ñëwee yaa ngi sant doo saalit doo bew doo yàq daa ko teg fu neex yàlla kon julli am na si ñun jeexital bu am solo wa man raqabu jalla sha'nuhu imtana amma yaxdaba nee na képp koo xam ni yaa ngi sàmmonte julli bi ko yàlla bëggee daf lay dox sa diggante ak def lu neexul yàlla falam yazin walam yurab walam yaxsud walam yumaatil fi xuquqi naas képp kuy julli julli gu wér julli gu sell yàlla du la nattoo yëgati meram doo tooñ doo añaan doo njaaloo doo sàcc doo sànq sa diggante aqu doomu aadama yi doo tooñ sa soxna doo tooñ sa borom kër doo tooñ sa njaboot doo tooñ sa dëkkandoo doo tooñ réew mi doo tooñ ñu ko yàqal ndax julli yàlla ni ci alquran inna salaata tanha an ilfahshai wal munkar nee ni julli dafa dox diggante nit ak def lu bon ak def lu ñaaw kon képp kuy julli ba noppi dëkk ci lu bon ak lu ñaaw war nga tiit ni sa julli kenn nangalagu la ko te nit li muy ñaan yàlla mooy mu nangul ko julleem wa man lam yaxsha fi salaati yi képp koo xam ni julli ngaa julli tiituloo ci ragaloo ci yàlla sàmmonteew ko aqu yàlla kaana aasiyan kooku mooy kat la wastuxiq adab allah kooku moo yeyoo mbugul yàlla ci kawam yan nañu ump yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam man lam tanhaw salaatahu an ilfahshaai wal munkar lam yazdad min allahi illa bu'dan koo xam ne yaa ngi julli te julli googu teewu la mooy teewu la def lu bon teewu la wax lu bon nee du la jor lu dul gën sore yàlla kon nag sàmmoonteeg teewlu gi sàmmoonteeg toroxlu gi sàmmoonteeg laab gi muy indi mu am ay résultat mu jeex ci sa ay jikko ak sa ay melokaan wa min rahmatihi taala bokk na si yërmande yàlla ci ñun mu def julli si juróomi waxtu ngir yombalal ñu ko ak laabal sunu bakkan ak fàttaliku fàttewoon yàlla waxtu woo fàbbeeku woon rek ñu noddaat nga fàttaliku yàlla dem lu lu jiwaat diggante boobee nga fàbbeekuwaat ñu noddaat nga dem julli jiwaat ngir fàttaliku yàlla yooyu yëpp yërmaleem la yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam inna man xaafada ala adaa'i salaat bi xushuuin gafara dambah wa ahabbahu rabbah nee na képp koo xam ni yaa ngi sàmmonteeg julli ci toroxu yam laaj yàlla balla say bàkkaar ba noppi sopp la ay ku yàlla sopp taxe nga adduna taxe nga alaxira yan nañu yàlla xiir ci boppam yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam man alima anna salaata xaqun maktub waajibun daxalal janna nga toog ba mu yàgg nga yëg ni julli farata la bu yàlla farataal ci yow àq la bu dox sa digganteeg sa borom nga yëg ko nga gëm ko nga joxe ko nee na daa dugg àjjana wa man lam yuxaafid ala salaati ku sàmmontewula julli nag faalewuloo ko joxloo ko àqam su la nee xëy julli su la nee xëy doo julli doo sàmmonteeg laab ga mu war doo sàmmonteeg toroxlu ga ak teewlu ba nee na yàlla la xañ barke dund dund gu amul barke gudd fan mbaa gàtt fan bu amul barke bu amul liimaan bu amul leer bu amul benn yiw yàlla na ëmp jullit ba noppi nag su duggee biir suuf danañu ko mbugal mbugal lu tar yàlla na ëmp jullit wa jaa yowma alqiyamati bila nuur ku dul julli bis penciment du ànd ak benn leer wa bi xeyri burhaan al iman malaayka yi duñu ko xam duñu ko seedeel ni ci am na liimaan te xurima najaat min al azab yàlla xañ ko mu mucc safara ba noppi doon ko torox yan na ump ump jullit ayuha almuslimun ittaqu llah wa xaafidu ala alsalawat wa adduha lillahi fi awqatiha xaashiin wala yamnaakum min adaiha bardun wala amal wa jahidu anfusakum xata la tumilu adaa salaat subhi bi waqtiha xayis yaxlu nam wala kasal sama mbokk jullit yu tedd yi ñoo ngi dénk suñu bopp te di leen dénku ragal yàlla te sàmmonte ak julli di ko jooxe ci seeni waxtu ànd ak laab ànd ak toroxlu ànd ak dal ànd ak teew bu kenn am lay nan dafa sedd lool mba tàngaay bee la jàpp mba liggéey bu metti ba nga sàggane julli nañu xeex ak suñu bakkan julli suba teel waxtu nelaw waxtu wa nelaw neexe waxtu tayeel nañu jaral ñu jóg joxante ak yàlla la mu moom tàkkusaan waxtu liggéey waxtu coono lu nit nekk woon naka dëpp teg ko dem liggéeyi nañu moytu di ñàkk wuti wuti wërsëg wuti dërëm jaay sàkk nguur ak daraja loolu tax amuloo jot jox yàlla li moom loolu kilifa yekk moom conseil des ministres conseil des gouvernements mbaa assemblée nationale séminaire réunion bu mu doon réunion adduna kott la war na leen jaral ci biir seen réunion yooyu le su waxtu julli jotee ñu teg ko dem julli ci adduna dañ kaa topp ba ragal buur yi kilifa yi su waxtu julli jotee ku jóg ni julli ji sax ñu am bët bu ñu lay xool naan yàq nga sunu réunion mbaa yàq nga sunu waxtaan la xawla wala quwata illa billah te ñëpp di jullit kon loolu jar na bàyyi xel ngir ñu mën a am nag médaille bi yàlla takkal jullit yi nee na rijalun la tulhihim tijaratun wala bayun an zikrillah wa iqaami salaat wa itaai zakat yaxaafuuna yowman tataqallabu fihi alqulub wal absaar liyajziyahum allahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlih wallahu yarzuqu man yashaau bi gayri xisaab sadaqa allahu alazim yàlla tagg jaam yi nga xam ni góor yàlla yi nga xam ni jaay ak jënd ak itte àdduna du leen fabbi ba ñu fàtte tudd yàlla ak taxawal julli ak génn asaka ak génn sarax ngir lan ngir tiit bésu pénc ma bés boobu nga xam ni xol yi ak bëtu xol yi danañu loqeeku ngir tiit gis lu ëpp seen fit su boobaa ñoom ñi doon julli yàlla fay leen gën ji pay ngir sàmmoonteel gi ñu sàmmoonteel nu aqu julli tabaarakallaahu boole kaag ay ngëneel yu dul dog du dog yàlla bu ñu loolu ump yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam araaytum law anna nahran baabi ahadikum yaxtasilu fii kulla yawmin xamsa marat hal yabqa min darani sheyun qaalu laa yabqa min darani sheyun qaala fakadalika mislu salawaat alxams yamxu llah bihinna alxataaya nee su kenn seen amoon ci buntu këram dex bis bu yàlla sàkk mu dugg sangu si juróomi yoon ragg yaramam ndax dana amati tilim si yaramam ñu ne ko déedéet yaa rasulallah mu ni julli noonu la mel julli yu juróom dafa far tilim far bakkaar ci doomu adama kon nag adduna bi nga xam ni seytaane ngi taxaw samp ndëndam ku bëgg egg ci yàlla mu dogale la di la moyloo di la jëfloo lu bon war nañu fu ñu toll sàmmonteeg julli yi ngir màbb seytaane màbb iblis ngir mën texe ci ni ko yàlla wax ci alquran qad aflaha almuminuun alladina hum fi salatihim xaashicuun walladina hum ala salawatihim yuxaafiduun ulaika hum alwarithuun alladina yarithuuna alfirdawsa hum fiha xaaliduun sama borom ne texe ñeel na ñi gëm yàlla ñi nga xam ni suñoo julli danañu toroxlu danañu teewlu danañu delloo seen xel ci yàlla dem ba sa biir aay ba mu ni ak gaa yi nga xam ni dañu sàmmonteeg julli ca waxtu ya di ko joxe nee na ñooñu la yàlla waajal ni ñoom ñooy ndono insha allahu firdaws ajjana ju kawe jooju fa la ñoo dëkk mu di seen pay seen liggéey ci lislaam yal nañu yàlla xiir ci boppam te nangul ñu sunu mboole seen julli ak sunu mboole seen jaamu yàlla bi barakati nabiyina muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam الحمد لله ذي الجلال والإكرام ذي الطول والإنعام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا رسول الله سيد الأنام اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الأئمة الأعلام الذين صدقوا مع الله فصدق الله معهم وغفر لهم وآتاهم من لدنه أجرا عظيما أما بعد فقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واتقوا عباد الله أن تأتي بالصدق في قولك وعملك قال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون mbokk jullit yi gannaaw bu ñu tuddee màggu yàlla tabaraka wa taala toroxlu ci kanamam sàbbakan julli ci gën ji mindeef sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli gu ëmbaale njabootam gu sell gi saxaabaam yu tedd yi ak taabiina yi ba ilaa yawmi diin yan nañ ci yàlla boole ñoo ngi dénk sunu bopp di leen dénk li wax ci alquran yéen ñi gëm yàlla gëm yi mu santaane yépp te gëm wéetaayi ba mel na ngeen ragal yàlla te dëgg-dëgg ragal yàlla sax ci ragal yàlla googu ba su dee dee ñëw mu fekk ñu di ñu ragal yàlla yan nañu ko yàlla wërsëgal ragal yàlla nag bokk na ci nekk rek nitu dëgg di wax dëgg di jëfe dëgg yàlla nañ ci alquran gaa yi nga xam ne fu ñu fekk dëgg ànd ca dëggal ko ne ñoo ñu ragal yàlla yan nañu yàlla xiir ci boppam li ñu koy may nag mooy tukkal alquran ci baat yi yàlla dénkaane daf ñu sant ñu jub ñu juboo te di jubal daf ñu sant rafetal daf ñu sant jokk mbokk tere nañu def lu bon tere nañu def lu ñaaw tere nañu bew képp ku sàmm dénkaane yàlla yi insha allahu taala mu jural la ragal yàlla ñoo ngi toroxlu di ñaan yan nañu yàlla boole xool ba tuy yërmande fi diini wa dunya wal axira yan nañu yàlla boole jéggal sunu mboole seen bakkaar yu jëkk ak yu mujj yu feeñ ak yu làqu yu ñu tey ak yu ñu teyul jéggal ko mboole seen jullit yàlla bu ñu yàlla jàppe ci àdduna wala ci alaxira benn bàkkaar yàlla bu ko yàlla jàppe benn jullit lu bàkkaar rëy rëy ak lu bàkkaar ñaaw ñaaw yan nañu ko yàlla bal balke bépp jullit fi diini wa dunya wal axira yan na yàlla doolu jàmm ci réew mi doolu jàmm ci réewu jullit yi suñu way dali ci suuf yan na yàlla ëmb leen ci yërmandeem ëmb leen ci njéggalam te yan na ko yàlla yaatal ba ëllëg ñun ñëpp suñu ñëwee xaj ci yërmande googu ak njéggal googu ci mbaaxam ak yërmandeem mbokk yi ñu tawal di si jotaay bi ci kër yi mbaa ci lopitaal yan na leen yàlla may wér gi yaram ko ñi am tiis mbaa ñu jàq yan na yàlla walu leen borom aajo yan na yàlla faj seen aajo ñu nekk seen tukki yan na yàlla leeral seen yoon sunu sëñ Xaaji Maajoor Si radiyallahu anhu yan na yàlla dolli leeram dolli yërmandeem ak gërëmam yan nañu ko yàlla fayal jazaal muhsinin ñi fi wuutu ci doom ak taalibi góor ak jigéen yàlla saxal seen juboo seen dëppoo seen jàppante bu rafet ba ñu téye doom yi mu leen bàyyil téye bu jur ngërëmal yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين بارك الله لي ولكم في القران العظيم وثبتني واياكم على الصراط المستقيم واجارني واياكم من عذابه الاليم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين انه هو الغفور الرحيم اذكروا الله يذكركم